ready, get ready, get ready. Waper. Malik, Mofis. Naka suba si yai tok. Togo made, damai tawal velo. Mangi ni sikaw tele bidi double otai. Giso ma. Waper, ya loy tek ni? Kamu lumay tek ni. Yaangi ma gis tok di fexlu, ngan ma ba yangi tok. Dof def la wala tay lu. Mais père, jarul ci potu yo ya, tamit. Wahin la waxin mooy lan. waa père baal ma maa la tooñ. baal ma xaaral ma dugg gaale lëës ñëwaat. waaye doxal dox bi jàppee ko nii rek wër ak doxaan rek. get ready get ready get ready xam naa léegi mu ñëw laaj ma dépense te dërëm yoruma ko. aleykum salaam kii kan la boppu papa Souloukhou wax naa nga bàyyi di ma wax boppu gaal yaa tax ba wakon bi ñep di ma lay woowee boppu gaal waaw ok dootuma la wax boppu gaal Saliou nekku fi de bu de mom ngay set. déedéet seetuma ko de papa Ndiogou mo de yoni. nee pour ma jox la li. hé 10000 francs juumoo Ki papa Ndiogou déedéet ma de Mo ma day wax dama nga joxal ma 10000 ala di Alaaji Souloukhou bobu de xawmako waye, ko waaye yal na suñu borom fay xamul sax fi mu ma jëlee demal ne ko sa papa suluxu nee na jeuf dumbe yalla ya dik na de kay dem marché jëndal ma gina tay gina lay añee ko salam salaamaaleykum waaleykum salam gor gi naka def en fait xale bi dama ko yoni won jox ko 10000 wow, francs ma laaj ko mu ma yo la jox xaliss bi waaw waaw man la ko jox de fi la ma fekk ma bank trop sax mu ne ma alaaji suluxu papa njoobu nee na ma jox la dix mille yi déedéet waxuma ko alaaji suluxu de alaaji souleyman laa ko wax sama grand frère la daf feebar moom laa doon jox dix ah moom da waxuma souleyman alaaji suluxu la ma wax suluxu ak souleyman suugee leen boole suugee leen boole waa dëgg la waa léegi ana dix mille naa ko jox naa ko soxna si bu yàgg mu dem marché jëndi ginaar lan ginaar yow biñ la joxe xaalis bi leg même pas 10 minutes après 9 minutes nga ne jënd ko ginaar dépasso goor góor bass si caaxaan. 10 minutes ngay wax yow 10 minutes buñ la ci tejon ci nek ak gayne lek na la ba señu say yah ah bon loolu nga may tont ah waaw waaw 10 minutes mënatoo si jot yow tamit. wa baax na. maa ngi dem de mais en tout cas xamal ni ginaar gi doo ak yow. duma ko ñuy togn de dag ma xamul nak motax nga may togn waye baax na dina la ak samay jinné ñu lek ginar gi duma walé la kalau nga gis ko. Hmm, xol ya boleh bu gàtt mu naan jinné yow bo day yalla tawal bulet ñi xif lek do dara njabal la la wax ak sa <laughs> eh ginar gi paré na dé bismillah. eh ku bismillah. Ui sao mình đi rồi vậy ơi Bữa đây ơi bữa đây ơi Get ready, get ready, Eh, Ben, Nala. waaye ça va my boy namu naa la de. waaye maa la raw père. naka sedd bi. ah boy sedd du problème. am na lu ko gën a métti fii ci Sénégal. père Suluxu sedd gi metti na de. métti na mais ñàkk moo ko gën a métti de boy dëkk bi dëgër na. waa dëgër na moom mais am jàppal ci lii. i fukki junni. non yaa ko moom père. booy yow kon li waa koñ bi di wax dëgg la. lan la waa koñ bi di wax foofu. waa koñ bi ñu ne léegi millionnaire nga de boy. te kenn xamul foo jëlee xaalis. ah père loolu bul ko dégg waxu sénégalais la. booy booy est-ce que nekkoo di jaay drogue. eh, eh delloo ma sama xaalis. waa baal ma baal ma damay caaxaan rek tamit mais booy rastaman lan moo xaalis jàppale ma ci kër gi yow tamit. père Malick ragal la. ragal kon de niruwuma man baayam mais wuyu ma bëgg naa am xaalis de doo ma dugal ci affaire yi. père est-ce nga. business bi ragal du si dugg de. booy du ba ma si dugalee dina am xaalis rek. bu gaaw sax taf-taf lay doon. dugal ma nangu naa. mais boo ci xasee dugg amul dellu ginnaaw de. porto aller la sans retour. waaye booy dugal ma ngaan ay dellu ginnaaw. kan mooy gis ay millions di dellu ginnaaw. waa baax na soo paree ñu dem de ma boole la ak waa ji. waaye booy pare naa. soo bëggee ñu dem léegi léegi laa la wax. waa yox la si yow la des. père taxi nañu galé bi la comme li ma la waxoon soo xasee ba d'accord accord jeex na de. booy la yow xana mëno nopi gorgi lan la fi indi khalis dole wala pouvoir lan nga bëgg ma défaral lako khalis khalis khalis la bëgg. boo fi génn ay million nga yóbbaale waaye foog nga def lu say morom daa waaye waxal la ma wax ma def ko am na koo romb si buntu koñ bi mu mel ni ku wére noonu gis nga ko dof bi Moussa Naajo xam naa ko kay wala moom mooy saw nga naan ay sawam mu dem ginnaaw kër nga lekk ginnaaw kër yi nga ñëw lekk pugu dof yow Moussa Nadio nga xam ne du sangu nga bëgg ma lekk puubam. yaa ne woon luñ la sant da koy def dugg nga ba pare doo génn. mais xaw ma ne woon yëf salte yi la de bàyyi naa bàyyi naa. Eh, amul dellu ginnaaw waxoon nañ la ko balaa nga ñëw da nga koy def. ma ni naanu ma saw lekkuma puub ba ma laa la wax. gis nga soo li gën a ndaw ci li ma lay def mooy dama lay soppi. xar mouton wala bëy chèvre mais. dangay xam dara ba may soppi xar wala bëy xoolal ba ma soppee xar wala bëy ma soppi la mbóot laa la wax loolu dara. maa faam dumbee entretien laa jëm de ñaanal ma ma signé contrat bi liggéey bu am xaalis ay waay nijaay yal na la yàlla jàppale ndax ñu génn ci taaba taaba gi sonn nañ trop dumbee yow tamit yàlla du tëj buntu tëj palanteer wàccee rido waaw waaw dëgg la de xamoon naa di nga am bés bu mel mon ancien combattant que 259 s 30 dumbe nopil sa làmmiñ bul ay a xam nga ne man mënu bul catu bul catu bul catu xaaral ma waxu gaw jeli xaali bu gungee ma souhaite moi bonne chance ma femme bonne chance I love you nijay I love you too ma kaani xeeñ Get ready. Get ready. Get ready. Bonjour. Bonjour. yow le monsieur Suluho oui oui El Hadj Suluxu Ndiaye ancien combattant matricule 259 f 1030 30. Ah, ok donc yow a signé contrat bi ci secrétariat bi légui pour le travail de gardiennage. waouh. waaw maak sama xarit bi taxaw le gardien yi. bonjour. bonjour ça va ouais. bon comme signé le contrat bi yakarna naa de dugg ci détails yi. yow mëss nga def gardiennage. waaw xam nga Youssou Ndour. bien sûr le chanteur. nekkoon naa gàddi kooram pendant dix ans. ma doon la ci dara. man je suis un ancien combattant. ah kon kay jarul ñuy sori li ñu soxla yëpp mu ngi ci yow léegi n'est-ce wax nañu la salaire bi ñaata la. non a waxaguñ ma ko de mais man dama bëggoon xam lan laay garder ak fan la nekk. ah bon kon da nga signé contrat bi te liiroo ko. ah dama yàkkamti dama ñëw rek signé. waa baax na garaawul. mais morgue jàkka ji ngay garde ah morgue jàkka ji ngay garde eh morgue nga wax de mooy fi ñuy denc nit ñi deey waaw waaw xam nga ko alaaji suluxu bayi na garde wu mais góor gi yow signé nga ba pare de te salaire bi trois cent mille francs la par mois trois cent mille francs bien sûr mais dafa am lu ma la bëgg a waxal maa ngi déglu mais grand morgue bi ñu war a garder est-ce que am na sécurité. bu amoon sécurité dinañ ut gardien góor gi xam nga ne amul sécurité waaye. non waxuma sécurité boobu de booy. sécurité muslaay laa la wax. luy dàq jinne yi ak affaire yooyu noonu quoi yaa ma gën xam. ah mais loolu yaa koy gérer sa bopp ki doon garde foofu moo doon utal boppam ay muslaay. voilà waa anamu moom sax ki doon garder morgue bi anamu. dee na. tay si fajar lañ ko fekk muda, mudde kenn xamul lu ko ray boy delo ma sama signature bàyyi bana delo ma sama signature delo ma sama signature delo ma sama signature delo ma sama signature fan su sulu nga motax ñu défaral le livre bande dessinée yo xamantene les sketches de la tuddu dañoo jël quelques épisodes ci saison 1 de Suluxu bi defal leen ko ci benn livre a cinq bu 40 pages vacances yi agsi na te xale yi dañu war a am loo xam ne moo leen di wettali ba duñ doxi c'est sur commande nag ndax nit ku ne day am turam ci livre bi mu commande looy xaar wooteel ci numéro boobu pour commander sa livre jëndaaleel sa doom balaa moo jeex en attendant saison 2 Suluxu bi di agsi parce que saison de Suluxu bi moom ñëpp xam nañ ni yéen ñëpp xam ngeen ne day